sëriñ mbàkke kajoor sëriñ mbàkke kajoor mi ngi feeñ jamono ci atum 1845 ci dëkk bii di mbàkke bawal di doomu mam balla aysa mbàkke ak soxna faati balla jóob moom sëriñ mbàkke kajoor bi mu feeñee jamono ci atum 1845 ci dëkk bii di mbàkke bawal di doomu mam balla aysa mbàkke soxna faati balla jóob mi meññ sëriñ mbàkke kajoor doomu sëriñ balla jóob faa xujja la sëriñ balla jóob faa xujja doomu sëriñ maam maxtaar ndumbe jóob la sëriñ maam maxtaar ndumbe jóob mi nag moo sañcoon dëkk bii nag di kokki sëtam bi bii nag di soxna faati balla jóob moo meññ nag sëriñ mbàkke kajoor sëriñ mbàkke kajoor nag doomu maam balla ay sala moom maam mor anta sali mbàkke mi meññ xaadim rasuul ñoo bokk benn waajur wu góor soxna faati balla jóob mii nag am na ak njaboot nag ak kii di maam balla aysa ñu mën caa ràññee soxna asta mbàkke bintu soxna faati balla jóob bintu maam balla aysa mbàkke ak ku ñuy wax soxna lawbe mbàkke bintu soxna faati balla jóob bintu maam balla aysa mbàkke ak moom sëriñ ibrahima mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke kajoor ibnu soxna faati balla jóob la ay Aïcha Mbacke sëriñ Ibrahima Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Mbacke Kajoor ñaar ñu jigéen nag la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor ak moom muy ñett ñaar ñu jigéen ñii nag mu bokkal benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy soxna Assa Mbacke ak kii di soxna Lawbe Mbacke ñoom ñaar ñii nag soo delloo ci téere bi Cheikh mu saaka bind te jagleel ko njabootug maam Maara Mbacke gi Cheikh Moussa Ka nag ma ngay wax nag ci biir téere boobu di wax ne soxna Assa Mbacke ak soxna Lawbe Mbacke mii doomu soxna Faati Balla Joob mii ak kii di maam Balla Aïcha Mbacke mii ñoo bokk benn bis nag buñ génn àdduna ci feebar nag bu leen tëral feebar ba nag feebaru pes la kon soo delloo ci mbindum Seex Musaa ma ngi ko cay leeral ci téere bii nag mu jag leel njabootug maam maaram gi bi ma tee dal alxuraanul karim moom sëriñ Mbàkke Kajoor waajuram maam Balla Aysa Mbàkke moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal ginnaaw bi nag la ko jébbal magam Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke mi nekkoon taawu maam Balla Aysa ginnaaw magam itam nag la ko jébbalaat beneen magam bi di Maam Sali Mbàkke mi meññi nag maam Balla Aysa nag jël doomam ji nag di sëriñ Mbàkke Kajoor féetale ko ak Mamor Anta Sali Mbàkke ngir nag jébbal ko ko Mamor Anta ko yar moo ko dëkkoo woon itam ndax fépp foo xam ne nii Mamor Anta Sali Mbàkke na fa nekkoon na fa rakkam ji di sëriñ Mbàkke Kajoor mu ba tax na fépp foo xam ne nii Mamor Anta mi ngi woon ci loxoy magam di Mamor Anta Sali Mbàkke moo xam Mbàkke Bawal moo xam Nja moo xam Xuru Mbàkke moo xam poroxaan ginnaaw poroxaan dëkk bii di paataar ginnaaw paataar ba ci dëkk bi Mamor Anta Sali Mbàkke mujjee nekk di Mbàkke Kajoor itam nekkoon na fak sëriñ Mbàkke Kajoor ndax newoon naa leen waajuróom Mam Balla Aysa ji nag di Mamor ba tax na fépp foo xam ne ni Mamor Anta Sali Mbàkke nekkoon na fa yóbbaale woon na rakkam ji nag di sëriñ Mbàkke Kajoor mu wéy nag nekk ak magam ba ni magam génnee àdduna ci atum 1882 ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor nag di dëkk boo xam ne ci lañ mujjee nekk ñoom ñaar ñaar mu nekk itam ku déggal magam ba tax na itam nag magam joxoon na ko ab cër na ci njabootam ndax kat kii di ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moom la ko mamor anta sali mbàkke féetale woon mu nekkub cëram itam ci doomu mamor anta sali mbàkke yi ndax kat mamor anta sali mbàkke ci boppam waajuram di maam balla aysa mbàkke sëriñ mbàkke kajoor mii la ko féetale woon ngir moom itam nag mu fay naar ba xoromam taxoon na itam mu fab doomam ji nag di xaadim rasul itam féetale ko sëriñ mbàkke kajoor ndax kan la ko waajuram def di maam ay sa mbàkke moom itam mu defaat ko sëriñ mbàkke kajoor mii loolu itam tax na sëriñ mbàkke kajoor ak jëmm ji nag di xaadim rasuul jaxasoo woon nañ lool ba tax na itam sëriñ tuubaa seexul xaadim joxoon na ko cër ba tax sax daana ko wooyee sëriñ mbàkke kajoor ngir wormaal gum ko wormaal ndax rakk jum nekk rakku waajuram di Mamor Anta Sali Mbàkke te moom itam sax moom la ko Mamor Anta Sali Mbàkke féetale ngir itam nag sëriñ mbàkke kajoor amub cër nag ci njabootuk Mamor Anta Sali Mbàkke gi loolu itam taxoon na sëriñ mbàkke kajoor ak doomam ji nag di xaadim rasuul amoon nañu jaxasoo nag gu yéemee yéemee yéemee yéemee ndax kat kenn ku ne joxoon nga sa moroom cër ndax sëriñ tuubaa seexul xaadim xaadim waajur la doon xoole sëriñ mbàkke kajoor sëriñ mbàkke kajoor itam doom ak sëriñ nag la doon xoole xaadim rasuul kon ñoom ñaar seenug jaxasoo yéeme woon na trop seenug jaxasoo gu yéeme woon googu taxoon na itam bi Mamor Anta Sali Mbàkke génnee àdduna ginnaaw bu mu goree nag dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor la sëriñ Mbàkke Kajoor nag sàkku woon nag ci Mamor Anta Sali Mbàkke di ko wax ne kat jamono ma toll ak yow yaa ngeekug njaboot maa ngeekug njaboot te nag dëkk bi nag di nag naa dox nag ba bu ëllëgee maag yow nag mbirum njaboot nag gàllankoor ñu bàyyi ma nag ma dem nag ci sama dëkkum nijaay ba di ndal la nekk nag ci kokki man faa nekk féete fa Mamor Anta Sali Mbàkke itam bàyyi woon na rakkam jooju nag di sëriñ Mbàkke Kajoor mu dem foofa kon bi Mamor Anta Sali Mbàkke di génn àdduna sëriñ Mbàkke Kajoor nag nag ci dëkk boobu di ndal la féete fa bi Mamor Anta Sali Mbàkke génnee àdduna la ko xaadim rasool jëli indiwaat ko nag jox ko Mbàkke Kajoor kon nag ma wax leen lan moo jotele nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor kii di sëriñ Mbàkke Kajoor ginnaaw bu Mamor Anta Saly Mbàkke goree nag dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ba féete fa nekkoon na fa nag ab diir nag ak kii nag di sëriñ Mbàkke Kajoor ginnaaw bi nag la ko sëriñ Mbàkke Kajoor waxtaan moom di ko xamal mën nañoo dem ba àdduna ak njaboot gàllankoor kon nag bàyyi ma nag ma dem nag ci dëkk bii nag di Ndalla nekk nag ci wetu kokki nag féete fa dëkk boobu nag ci ay nijaayu sëriñ Mbàkke Kajoor nag ñoom ñoo fa nekkoon foofu nag la sëriñ Mbàkke Kajoor nekkoon nag ba ni Mamor Anta Saly Mbàkke génnee àdduna nag ginnaaw bu Mamor Anta Saly Mbàkke génnee àdduna la Xaadim Rasuul nag yónniwaat nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke mbàkke ndaamal daaru di ko xamal ne demal jëli suñu baay boobu di ibrahima ginnaaw bu maam ceerno nag ñëwee nag ci dëkk boobu di ndalla doon jël si nag waajuróom wow di sëriñ mbàkke kajoor sëriñ mbàkke kajoor nag nanguwul woon a ñëw ndax kat boobu fekkoon na ay nijaayam nag tàmbali koo sancal nag foofu nag di ndalla ginnaaw bu maam ceerno ibrahima faati del si waatee nag ci yónneen bu ko xaadim rasool yónni mi ngi doon xamal sëriñ tubaa seexul xaadim di ko wax ne suñu baay ibrahima meede dafa mel ne daal fee mu nekk ñoo ngi ko fay waaj a sancal ci la nag sëriñ tubaa seexul xaadim nag jógal boppam ñëw nag ci dëkk dëkk boobu di ndalla fekk fa nag waajuróom woow di cheikh ibrahima mbàkke mbàkke kajoor di ko wax na nag delsil nag mbàkke kajoor ndax kat gisatuñ mammoor anta sali mbàkke te yow yaay suñu waajur ci la sëriñ mbàkke kajoor nag foboo ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu dikkaan mbàkke kajoor ginnaaw bu mu dikkee mbàkke kajoor nag la ko xaadim rusool di ko xamal ne waxtaan na maag mbooleem doomu mammoor anta sali mbàkke yi ñu may xamal ne jox nañ ma dëkk bi man mi itam nag féetale naa la dëkk bi nga féete fa kon lii moo jotale sëriñ mbàkke kajoor ci dëkk boobu di mbàkke kajoor ak xaadim rasuul nag ci dëkk boobu di mbàkke kajoor ab diir bu néew sëriñ tubaa seexul xaddim nag taxawal nag lii di yoonu murit ginnaaw yoonu murit nag sëriñ tubaa seexul xaddim dafa bàyyi koo mbàkke kajoor nag ñëwaat ci dëkk bii nag di mbàkke bawal fas yéene gor nag dëkk bii nag di daaru salaam ak tuubaa ginnaaw bu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim goree tuubaa nag woolu woon na fi waajuram wow nag di sëriñ mbàkke kajoor ngir mu ñëw xool si nag sanc boobu nag di tuubaa ki la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag yónni maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak doomu nijaayam boobu nag di sëriñ mbàkke ngir ñu dem mbàkke kajoor nag wool ko waajuroom woowu nag di sëriñ mbàkke kajoor ginnaaw bu maam Cerno ibrahima faati mbàkke ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim waajuroom woowu di sëriñ mbàkke kajoor booba nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim mi ngi dëkkoon nag fii jumaa ji fii ñu ko denc tey moo nekkoon néegam bi sëriñ mbàkke kajoor nag ñëwee wuy si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim seexul xadim nag di ko wan nag dëkk bi mu gor sanc ko ngir sëriñ mbàkke kajoor nag ñaanal ko ci keroog bi sëriñ mbàkke kajoor egsee seexul xadim dafa génne lu woon néeg boobu mu dëkkoon lépp loo xam ne ni ay bagaasam la daal di féete nag fi nga xam ne nii tey ji fi lañ denc sëriñ tubaa cheikh abdou mbàkke la woon fi sëriñ tubaa seexul xaddim li fi sëriñ mbàkke kajoor nekk ci diirub di wax ne li tax nag mu génnum néegam jox ko sëriñ mbàkke kajoor mii ndax kat sëriñ mbàkke kajoor mii mooy mamor anta salim te tey jii kat bu fi mamor anta sali mbàkke nekkoon moom moomu xaadim rasul du bokk ak néeg mukk nag mamor Anta Sali Mbàkke te Mamor Anta Sali Mbàkke nag mooy Serigne Mbàkke Kajoor ci moom Serigne Mbàkke Kajoor itam mooy Mamor Anta Sali Mbàkke ci moom kon nag tax na war ma jëm waroon a jox Mamor Anta Sali Mbàkke war ma ju raw sax nag lay jox waajuróom wii di Serigne Mbàkke Kajoor loolu moo taxoon nag Seexul Xaddiim nag dem sanc nag tey fii ñu denc nag Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke foofu nag la Seexul Xaddiim nekkoon nag ci diirub juróom benn weer yi Serigne Mbàkke Kajoor nag am nag ci dëkk bu Seexul Xaddiim nekkoon juróom benn weer moo tax nag bi Serigne Touba kaamil mu tabax ko foofu loolu itam moo taxoon nag ba tey itam sëriñ Abdou Lahad Mbàkke nag waggar fi nag barab boobu ba bi mu génnee àdduna nag mu sàkk woon ci njabootam itam ñu denc ko foofu ndax xaadim rasul mii waajuram kat am na fa juróom benn weer ki sëriñ Mbàkke Kajoor nag seet seet doomam jooju di xaadim rasul boobu nag fii jumaa ji nekk kër ku baax ki sëriñ Tubaa seexul xadim la woon waaye ci jamono jooju itam ñeenti néeg ñoo fi nekkoon ginnaaw bu seexul xadim wooloo waajuram wow nag ngir mu ñaanal ko nag ci pàkk bi bi sëriñ Mbàkke Kajoor ñëwee itam dénkaan lim joxoon baax ki sëriñ Tubaa seexul xadim dana gi benn néeg bi nag dee ci jaamu suñ borom di fa jànge alxuraanul karim benn néeg bi nag dee fa dalal gépp gan goo am beneen néeg bi nag dee fa fanaan ba ca des nag dee fa noppaloo te ndigal loolu sëriñ mbàkke kajoor nag joxoon doomam jooju di xaadim rasul xaadim rasul itam jëfe woon na ko ndax war ma jum amoon ci waajuram woowu sëriñ mbàkke kajoor nag ci yoon woowu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim téye woon na ko nag ci diirub juróom benn weer su waxtu julli masaa jot ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mooy bàyyi ko fii sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke tëdd ngir ñëw nag fii mu tëdd boobu nag néegam te fi la dalaloon waajurum woow itam di sëriñ mbàkke kajoor ànd moom nag ñu daal di dem nag ca jàkka ja booba nag jàkka ji moo nekk nag fii ñuy jullee tabaski ak korité bu ñu egsee nag ci jàkka ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mooy nodd liqaam daal di wax sëriñ mbàkke kajoor nag mu jiite loolu nag ñoom ñaar sax nañ ci ci diirub juróom benn weer ginnaaw bi nag la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi waat sëriñ mbàkke kajoor mi waajuram nag mu delluwaat ci mbàkke kajoor googu nag féete fa ba ni sëriñ mbàkke kajoor génnee àdduna ci atum 1908 ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wéel nag ak nekkinam ci Touba mu defaat fi nag ay at yu néew am fi nag takk-takk nag ak tubaab bi ñu yóbbu ko nag ci réew mii nag di Gabon bi sëriñ Touba Seexul Xaddim nag di dem ci Gabon sëriñ Mbàkke Kajoor mi waajuram nag mi ngi nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ndax kat foofu kat la ko Seexul Xaddim dël te foofu itam la ko féetale ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddim ñibbisee nag ci géej gi ci atum 1902 ginnaaw bu sëriñ Touba Seexul Xaddim ñibbisee ci géej gi nag ci atum 1902 nag seet si na waajuram nag di sëriñ Mbàkke ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ci bisum ñeenti fan nag ci weeru korite la njabootuk sëriñ mbàkke kajoor di màggal di bis bi xaadim rësool dajee waat ak waajuróomam woowu ci mbàkke kajoor laataa seexul xadim nag di ñibbisi nag ci géej gi bi mu nekkee nag ci réew moomu nag di gabon doomu sëriñ mbàkke kajoor bu mu fayee woon waajuróom wa di sëriñ abibullaahi ak waajuróom woowu nag di soxna faati bàll jóob moomu nag dañoo génn àdduna sëriñ mbàkke kajoor nag bindoon na lettre nag xaadim rësool nag di ko yëgal nag loo xam ne nii nag na ci ginnaawam ndax boobu kat seexul xadim mi ngi ci mi ngi nag ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor doom jooju mu tudde woon abibullahi tam génn nag àdduna fekk nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim mi ngi nag ci réew moomu nag di gabon ak waajuru sëriñ mbàkke kajoor moom itam génn àdduna ginnaaw bu fi koo dem ci géej gi muy soxna faati balla jóob moomu ñaari xew-xew yooyu nag la sëriñ mbàkke kajoor doon tàggee nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moo taxoon itam mu bind ko lettre booba nag seexul xadim nag mi ngi ci réew mii nag di gabon soo demee nag ci lettre bi sëriñ mbàkke kajoor bindoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ma ngay tàmbali lettre ba nag ni lislaam baaxoo tàmbalee muy sant suñ suñ borom mi bind jaamam sant itam ngën gi mbindeef mi nga xam ne nii kat moom la suñ borom yónni nag ci askanam ma ngi koy wax ne nag sa xarit sa waajur ci lu nëbbu ak lu feeñ moo la fas yéenee nag bind lettre bii di ibrahima ibnu abibullahi sëriñ mbàkke kajoor nag ma ngi koy wax ne maa ngi lay nuyu ci nuyoo bi gën a kawe nag ci ay nuyoo man ngi koy xamal ne itam duma la fàtte nag ci sama diiru dund moo xam nag ci wàllu ñaan ci saabu bu ma jullee moo xam jullig farata nag wala jullig naafa sëriñ mbàkke kajoor nag mi ngi wax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ne ko maa ngi lay yëgal sama doom jooju di balla moo génn génn àdduna ci sa dëkk boobu nag di Touba ci feebar nag bu ko daloon di feebaru mbas ci weer wii rek ñu génn nag di weeru korite wi ma ngi koy waxaat itam nag ci biir lettre bi di ko wax ni sama waajur sa xarit moom itam nag dafa génn àdduna ci bisub ajjuma bi jant biy so weer wa moo nekkoon juróom-ñaari fan nag ci rakk ji gàmmu ci at mii nag ñu nekk lettre boobu nag la sëriñ Mbàkke Kajoor nag bindoon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim nag bi mu nekkee ci géej gi ngir nag di ko tàgge doomam jooju nag mu tudde woon Abibullahi di waajuram ak nag waajuram wow nag di soxna Faati Balla Jóob ginnaaw buñ génnee àdduna nag nag te fekku fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir mu ko doon yëgal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo taxoon nag mu bindoon ko lettre boobu ñu teewlu lettre bi bismillah alhamdulillahi waxda wa sallallahu taala ala man la nabiya baada wa baadu fa min ammika wa qalilika sirrahu wa alaaniyata xadratan wa xayba ibrahimu bun xabiballah atimma salaama wa aska taxiya wa aalam anni laa ansaaka munsu xayaati min saalixi duaai isra kulli salaatin fardan wa nablan wa ilaamuka anna balla ibni tuwafa fi daarika tuuba maa allazina maatoo hunaalika fi shahri shawal li taaunin waqaa hunaalika wa kasaalika ummi xalilatuka rahmatullahi alayna wa alayha tuwafiyat yowma aljumaa inda xurubi shamsi saalika alyowm yowmu saabi min rabii thani fi hadihi sanati allati naunu fiha wa anta laa tansa nafaana iyaaka suma iyaaka min doa il xayri maaha li boobu nag la sëriñ mbàkke kajoor bindoon doomam jooju nag di xaadim rasul bi mu nekkee ci géej gi ngir nag di ko tàgge nag doomam jooju di abibullahi ak waajuram woowu nag di soxna faati balla jóob ginnaaw bu doomam jooju nag ak waajuram woowu génnee àdduna nag te fekk fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag mu doon ko ko yëgal sëriñ tubaa seexul xadim nag wéy nekk gabon sëriñ mbàkke kajoor nag wéy nekk nag ci dëkk bii nag di mbàkke kajoor ba ni sëriñ 1902 bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci bisub le 11 novembre 1902 seet si na waajuram wa woow nag ci bisub ñeenti fan nag ci weeru korite nag ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor ba tax na bis boobu sax la njabootuk sëriñ mbàkke kajoor giy màggal ginnaaw mbàkke kajoor nag sëriñ tubaa seexul xaddim dafa jaar fi mu jaar ba ñëw daaru marnaan ginnaaw daaru marnaan nag amaat na fi takk-takk ak mbaaxaat nag tubaab bi duggaat yi ñuy boot ku baax tubaa seexul xaddim ci réew mii di gànnaar waaye gànnaar googu nag sëriñ mbàkke kajoor demu fa daal yónnee ay ndaw nag ngir ñu koy seetil doomam jooju nag di xaadim gànnaar ca yéen jolof te yéen jolof googu nag la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wooloo nag waajuróom wi nag di sëriñ mbàkke kajoor ginnaaw bu mu yónnee rakkam ja nag maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru demee nag ci dëkk boobu di mbàkke kajoor boo wool xaadim rasool waajuróom wow di sëriñ mbàkke mbàkke kajoor ba sëriñ mbàkke kajoor jógee ci dëkk boobu di mbàkke kajoor ñëw nag ci ca yéen jolof ngir seet si doomam jooju di xaadim rasool ci woolu gum ko woolu sëriñ tubaa seexul xaddim nag téye woon na ko Kajoor nag nekk nag ci dëkk boobu di Jolof Cheikh Mamadul Faadal nag la ko Xaadim Rasuul boolee loon ngir Cheikh Mamadul Faadal nag di toppatoo maamam jooju nag di Sëriñ Mbàkke Kajoor ginnaaw juróom benn weer yooyu mu dafa Xaadim Rasuul ci dëkk boobu di Ceyeen Jolof keroog bi ko Sëriñ Tubaa Seexul Xaadim di yeewi waat ngir Sëriñ Mbàkke Kajoor dikkaat nag ci bii nag di Mbàkke Kajoor ak gaal nag la ko ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xaadim jox gaal googu nag naka te ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xaadim lam ca def mooy bu Sëriñ Mbàkke Kajoor génnee àdduna ñu mën ko caa waajal bisub keroog bi ko ku baax ki Tubaa Seexul Xaadim di mu del siwaat nag ci dëkk boobu di mbàkke kajoor aw fas nag la ko jox ak mbooloo mu gunge sëriñ mbàkke kajoor nag ba ci boobu nag di mbàkke kajoor keroog bi ñuy tàggatoo nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi di ko wax ne li nga woon ci man de dinaa la ko defal muy bala ngaa génn àdduna nga gisaat ma moo tax sax bi ma demee ci géej gi ba am fa ñetti at ci lañ ma xamaloon ne yow mii war ngaa génn àdduna waaye nag comme waxoon naa ne na danaa dem danaa ñibbisi moo taxoon nag ma sàkk woon ci suñ boroom mu yokkal ma saw fan waaye jamono jii may waxee yow nag àpp bi nag jege si na sëriñ mbàkke kajoor nag tàggutoo xaadim rasool nag ci yooyu kàddu mu delsiwaat nag ci dëkk bii ko xaadim rasool dëël di mbàkke kajoor wax ne nag mu ñëw daaru marnaan gii booba nag maam ceerno mi ngi woon ci daara woon daara yu fettoo ngir di ko wax nag na dem mbàkke kajoor taxawul ñu nag suñu baay boobu nag di ibrahima ndax kan mi ngi ci wàccaayu bar sàq maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bàyyi koona nag ci dëkk boobu di daaru marnaan ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim ngir dem nag mbàkke kajoor ay fan yu néew nag la fa def sëriñ mbàkke kajoor sëriñ mbàkke kajoor génn àdduna maam Thierno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru nag waajal nag waajuram wow di sëriñ mbàkke kajoor ginnaaw bu mu ko waajalee ba pare nag la ko maam moor jaara mage mag jullee sëriñ tubaa seexul xadim nag joxaat ndigal maam Thierno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru ngir mu toogaat foofu nag ci mbàkke kajoor wéttali nag njabootug sëriñ mbàkke kajoor gi maam Thierno Ibrahima Faty nag defaat na mbàkke kajoor googu lu tolloo ñeenti at ndax 1908 ba 1912 mi ngi ci mbàkke kajoor googu ci ndigalul ku baax ki mu ne woon ci mbàkke kajoor maam ceerno di tróndóom di doomu sëriñ cheikh awa balla mbàkke mooy ki ko moom jamono ji wala moo fa fiite jamono ji foofu ci mbàkke kajoor ginnaaw bi tam la sëriñ tubaa seexul xaddim woolu waat sëriñ xamsatu jaxate bindub lettre jox ko di ko wax ni itam maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daariti mën naa jóge waat foofu nag ginnaaw bu maam ceerno jógee foofu nag la gor nag dëkk bii nag di daarul moxti sëriñ mbàkke kajoor nag nekk na ku bëgg doomam jooju di xaadim rasul xaadim rasul itam na ku bëgg waajuram wow di sëriñ jaar nañ fu baree baree baree bari ci nekkin wala seexul xaddim itam jaar na fu baree bari ak waajuram wow di sëriñ mbàkke kajoor ba tax na ñoom ñaar ak kóolite amoon na ci seen diggante kóolite gu yaatoo yaatu kóolite googu itam seexul xaddim sàmm na ko ba ci njabootuk sëriñ mbàkke kajoor gi ndax bi mu nekkee foofu ci njaareem daana sàkku itam ci njabootuk sëriñ mbàkke kajoor gi lenn itam ci lu mu war a def itam ñu di ko ko defal ba te itam kóolite gu xaadim rasul amoon ci njabootuk sëriñ mbàkke kajoor gi tax na itam bi muy waaj a dellusiwaat ci dëkk bu sell bii di tuubaa moom xaadim rasul mbooloo mim yabaloon ngir ñu seet si fii ñu ko war a denc itam lu takku itam ci njabootu sëriñ mbàkke kajoor gi itam bokkoon nañ ci ba tey diggante sëriñ mbàkke kajoor ak xaadim rasuul bi maam mor anta sali mbàkke génnee àdduna ci dëkk boobu di mbàkke kajoor sëriñ tubaa seexul xaddim ak sëriñ mbàkke kajoor bind nañ ab kaamilu alxuraan ci fukki fan ak ñaar kaamil ba sëriñ mbàkke kajoor moo ko bind waaye xaadim rasuul moo ko maasa kaamil ba jamono ji mi ngi ci loxoy sëriñ abdul xuddoos mbàkke mi toog toogaayu sëriñ mbàkke kajoor ndax kaamil ba képp ku mag ci njabootu sëriñ mbàkke kajoor yaa yore moo tax nag mi ngi ci loxoy sëriñ Abdul Xuddus Mbàkke ku dem gis njaboot gi ñu wan la kaamil ba ba tey diggante sëriñ Mbàkke Kajoor ak ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim bi sëriñ Tubaa Seexul Xaddim jógee ci géej gi ba ñëw ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor si waajuroom wow di sëriñ Mbàkke Mbàkke Kajoor bokk na ca lam ko indaalee loon ay xalima ay yëre yum daa sol ci diirub tukki bi ak kaamil nag bu xaadim rasul bind ci loxo boppam sëriñ Mbàkke Kajoor itam bokkoon na itam ñett ñi nga xam ne nii sëriñ Tubaa Seexul Xaddim daawu leen sàllawlu muy waajuroom Mamor Anta Sali Mbàkke mbàkke magam mammoor jaara ak moom moomu nag di waajuram di sëriñ mbàkke kajoor ba tey kóolute gu xaadim rasul amoon ci waajuram wow di sëriñ mbàkke kajoor sëriñ mbàkke kajoor itam am ko ci doomam jooju di xaadim rasul tax na itam bépp njabootuk sëriñ mbàkke kajoor ci loxoy xaadim rasul la nekkoon moo xam góor ak jigéen njaboot gu jigéen gi ñeenti doomu sëriñ mbàkke kajoor yu jigéen xaadim rasul dëkkoo woon na leen muy soxna Saynabu mbàkke bintu sëriñ mbàkke kajoor am na xaadim rasul sax benn bant muy ku ñuy wax soxna Maymunatu mbàkke soxna Maymunatu mbàkke Seynabu Mbàkke am ak kii di xaadim rasuul mi ngi ci armeeri Gédé yi ak ku ñuy wax soxna faati xujja Mbàkke soxna faati xujja Mbàkke mi itam bintu sëriñ Mbàkke Kajoor am na ak njaboot itam ak xaadim rasuul mooy soxna mbeen Mbàkke ngaabu ak ku ñuy wax soxna Aysatu Mbàkke njaxata waaye soxna Aysatu Mbàkke njaxat mii bintu sëriñ Mbàkke Kajoor amut ak bant xaadim rasuul ak ku ñuy wax soxna Sooda Mbàkke soxna Sooda Mbàkke bintu sëriñ Mbàkke Kajoor mi itam amul ak njaboot ak xaadim rasuul kon ñaar ñi am nañ ak njaboot ak xaadim rasuul ñaar ñi ci des amuñu njaboot ak xaadim rasuul ñoom ñoom ñépp nag bintu sëriñ mbàkke kajoor lañ ba tey fonk gu xaadim rasul fonkoon waajuroom wow di sëriñ mbàkke kajoor tax na bi mu demee ci géej gi te bindoon lettre na kii di mammoor jaara magi mag ngir mu nuyul ko njaboot gi ma ngi cay tuddaale nag waajuroom wow di sëriñ mbàkke mbàkke kajoor ñu teewlu lettre bi min kaatibi haasihi l-urwa ilaykum ayyuha faqih cheikh mouhamad jaara wal hamu cheikh ibrahim wa ibrahima alfaqir walmuxtar wa mouhamad mu ahmad wa jamii awlaadi alwalid rahmatullahi taala alayhi wa ala jamii almuslimin walmuslimat wa cheikh omar wa cheikh mohamad wa mohamad Samba wa Xamar wa jamii awlaadi wa rahmatullahi taala alayhi wa ila jamii abnaai alammi walhammati wa ila jamii aljiraani xumuman wa xusuusan taxiyatan tadoo li kaatibiha wa lakum maan xayra dunia wal axira wa salaamatuha amma baada falaa yakun fi sudurikum xarajun min kulli ma sadara min jihati mimma yusabbihu suu al adab wa qatan rahim wahlamu bi anni ma faaltuhu ala amri waltutib nufuusakum maan bi anni fii xalwatin laa xayru fa mata uxraj axruj ba tey ci diggante sëriñ Mbàkke Kajoor ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi Seexul Xadiim wooloo sëriñ Mbàkke Kajoor nag ci dëkk bu sell ville bii di Touba ngir sëriñ Mbàkke Kajoor nag ñëw xool si dëkkub xaadim rasuul boobu ci diirub juróom benn weer yi sëriñ Mbàkke Kajoor nag am nag ci dëkk bu sell bii di Touba laataa muy delluwaat Mbàkke Kajoor bindal na fi ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaadim ñaari kaamil sëriñ Touba Seexul Xaadim itam leeral na ko lu baree bari itam ci ay kiimaan sëriñ Touba Seexul Xaadim itam neewoon na sëriñ Mbàkke Kajoor suñ borom xamal na ma ne naa la laaj lépp loo bëgg ma defal la ko sëriñ Mbàkke Kajoor nag keroog mi ngi tontu ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaadim ne ko nag na ma suñ borom defal heure bu ma faatoo nag ma tàbbi àjjana ci loo xam ne ni gi suñ borom dogal itam ko maa leen dara leen seen lislaam mu ne ko ba tey itam maa ngi sàkku ci suñ borom heure bu lislaam jaaxle na xel yépp nag dem ci sama njaboot gi sëriñ tubaa seexul xadim mi ngi doon wax waajuroon woowu nag di sëriñ mbàkke kajoor ne ko loolu suñ borom defal na la ko bisub kero sëriñ mbàkke kajoor jooy na tuur rongooñam mi ngi doon xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag ne ko sama yaakaar tasul ci yow ndax kat fépp fu ma masa nekk ak yow ak sa waajur soxna jaaratullahi ak sa waajur woowu nag di mamor anta sali mbàkke waaye ñoom li ñu la doon fonk fonk fonk yéene ji ma amoon ci yow moo gënoon a foor fopp ñoom jiñ amoon ci yow ndax doyu ñu ma woon sax ci yow kon nag yaakaar joojee ma amoon ba sa waajur yi sax doyu ñu ma woon ci yow tey jii nag sama yaakaar jooju tësul am naa ci sax yaqiin loolu nag moom moo tax nag sama xol bii sedd guyi nag ci yow mii sëriñ Abdou Karim Mbàkke moom sëriñ Omar Mbàkke Gelongal seeti woon na bi sëriñ Sohaybu bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul sëriñ Sohaybu bu Mbàkke nag doon waxtaan ak moom nag ci maamam jooju di sëriñ Mbàkke Kajoor nee na kero bisu kero sëriñ Sohaybu bu Mbàkke mi ngi koy wax ne bi waajuram Xaadim Rasuul wooloo waa juróom woow di sëriñ mbàkke kajoor ci dëkk boobu di mbàkke kajoor ngir mu ñëw seet si nag dëkkam bu sell bii nag di tuubaa ba mu ñëw fi ñu saafonte keroog sëriñ tuubaa seexul xaddim waxoon na nag lii mu waxoon sëriñ mbàkke kajoor ngir suñ borom xamal na ma ne waxal loo bëgg ma defal la ko ba sëriñ mbàkke kajoor nag wax ko nag lii mu ko waxoon ba noppi keroog nag ca jotaay boobu sëriñ mbàkke kajoor am mi ngi doon fàttali ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim ne ko heure buñ masaa nekk nag ci daara ji muy sa daaray waajur jooju di mamor anta sali mbàkke heure buñ masaa nag di jëfandiku muy di añ fu ma jaar tibbub tibb nag dencal la ko ngir nga man man caa jëfandiku yaakaar joojee ma amoon nag daa tibb tibb ngir di la ko dencal ngir boo ko soxlaa jëfandikoo jëfandikoo ko yaakaar joojee ma amoon ci yow ba nëga ni ko yaakaar jooju nag muy dund ba nëga ni doomam jooju di xaadim rasul ba tax na sax bi xaadim rasul nekkee tut tànk saa buñ masaa nag di jëfandiku moom dana tibb ab la lekk ngir dencal ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddi ngir féetale nag gu leen maamoor anta sali mbàkke féetale ak yaakaar jum amoon ci doomam jooju di xaadim rasul sëriñ soñ bu mbàkke nag keroog mi ngi doon wax sëriñ abdou karim Karim Mbàkke di ko wax ne sëriñ Mbàkke Kajoor sa maamitim mi ngi doon wax sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nag ne ko nag ba may def loola nag yaakaar ji nag laa amoon ci yow waaye nag santaat naa wax ma lii kii di sëriñ Tubaa Seex Saaliwu Mbàkke itam na nag ci maamam jooju nag di sëriñ Mbàkke na ne sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nag ku tegoon ndax li ko Mamor Anta Sali Mbàkke di meññ meññ as seexu la ko la ko daa wax ba tey sëriñ Tubaa Seex Saaliwu Mbàkke mas na toog ak kilifa gu mag kilifa ga nag di ko nettali baaxug sëriñ abibu ak fonk gum fonk lislaam ak daal jub gum jub ak yooyu sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke di ko wax ne soo xamoon magam dañuy wax sëriñ abdul mujib da nga bàyyi baaxug sëriñ abibu mbàkke waaye nag loola nag du mbetteel ci ñoom ndax seen waajur wa sëriñ mbàkke kajoor maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina moom itam nag seedee na nag ci waajuru xaadim rasul woowu di sëriñ mbàkke kajoor wax na itam sëriñ mbàkke kajoor jëf na jëf yu rëy rëy rëy rëy ci jataayub xaadim rasul wala ci ëttub ci diine ji sëriñ mbàkke bu so itam mas na sëriñ tuubaa doo sëriñ mbàkke kajoor niiwaan na lool nag mu jaral ko mu jural doom àdduna sëriñ tuubaa xaadim rasuul itam seede na nag ci waajuram wow di sëriñ mbàkke kajoor ginnaaw bu mu fi bàyyi ko mu wax ne moom magam ja maam moor jaara ñoom ñaar dañ ko noppal ndax yóbbaale wuñ bàkkaar yóbbaale wuñ bor kon liitam xaadim rasuul seede na ko ci waajuram sëriñ mbàkke kajoor ak magam maam moor jaara ba tey xaadim rasuul itam seedewaat na ci waajuram wow di wax na sëriñ mbàkke kajoor lu ko nit di rawee ci suñu boroom cooba rek suñu boroom lay doon waaye lu nit di jëf rek jëf na ko kon nit moom mënu koo raw ci jëf waaye nag bu ko nit rawee ci suñu boroom coobareb suñu boroom lay nekk waaye du nekk mukk nag jëf jum jëf ba tey fonk gu xaadim rasul fonkoon waajurum wow di sëriñ mbàkke kajoor taxoon na itam lu kajoor meññi sëriñ tubaa seexul xaddim itam la ko jébbaloon ngir fonk gum fonkoon xaadim rasul am na bis itam ci njaareem sëriñ tubaa seexul xaddim di doxantu ci guddi gi ba fekk nag lenn nag ki njabootu sëriñ mbàkke kajoor googu ñu ko joxoon nag ñu nekkoon ay tut tànk ginnaaw bu laaj laajee ñii ñan la kenn ku ne tuddal ko saw tur mu leen di laaj ba xam baa reer ngeen ñu di ko wax ni ko déedéet sëriñ tubaa seexul xaddim nag sàkk woon na nag ci kër gi ñu rayal leen ab gàtt te defaral leen ko te boole ko kerey lay nag ngir njabootub sëriñ mbàkki kajoor googu nag mën caa jëfandiku bisub keroog nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi wax ne njabootub sëriñ mbàkke kajoor nekk ci sama kër gii nag di fande mi ngi mel na nag li olof njaay di wax ne fayoon naar ba xoromam kon de lool nag damay daal di dal di xamal keroog nag njabootub sëriñ mbàkke kajoor googu fa nekkoon di leen wax ne seen waajur wa sëriñ mbàkke kajoor séq na maag moom loo xam ne nii ku dul suñu boroom rek xamoo ko ndax yéen bi may nekk ci daara ji maak seen waajur wa bu ñuy reer wala ñuy ñuy añ moom day xam ne man mënumaa tibb bu baax te moom fa mu jaar wutub tib ngir dencal ma ko kon nag foofee mu jaar ak man su ngeen nekkee ci sama kër gii di fadde li olof njaay di wax ne fa yu ma naar ba xoromam damay daa di dal lii itam seexul xaddim seedeel na ko njabootuk sëriñ mbàkke kajoor moo tax bindukatu xaadim rasuul ba di seex musaa def na ay bayit nag ci sëriñ mbàkke kajoor ma ngay wax ci biir bayit yéen a di wax ne nag sëriñ bii muy waaja way sëriñ bu ragal yàlla la bu sàmm la bu bari xam-xam la gi daa sax la jikkoy sëriñ mbàkke kajoor daal la cheikh Moussa Ka tënk ngir doon ko wax nag askan wi ñu teewlu ko wa huwa cheikhun aalimun taqiyu wa zaahidun wa wariun naqiyu wa aalimun wa aamilun wa baariu wa huwa ila alxayraati qad yusaariu min baadi ma ataa min almadaarisi wa daarasiituhu li kulli ba tey cheikh Moussa Ka wayaat na nag kii di sëriñ mbàkke kajoor wala defaat na misaal nag ci sëriñ mbàkke kajoor fonk gu ko xaadim rasul fonkoon ak wooye baay nag gu ko xaadim rasul daa wooye baay moo tax cheikh Moussa ne gis na xaadim rasul di wax maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru naan ko nuyul ma mbokk ya ak sama baay Ibrahima ñu lu Seex Musaa Ka gis naa gannaaw ga muy nuyoo ko rakkam ya ak magi taalibe ya ak mbokkam ya banaa ko yow mi Ceerno Ibrahima nuyul ma saa baay tax ba Ibrahima te mooy Sëriñ Mbàkke Kajoor mu baax ma ngir suma daa bëgg a taxaw mu ñaax ma loolu itam nag la Seex musa Ka seede ci Seex Ibrahima Mbàkke Mbàkke Kajoor Sëriñ Mbàkke Kajoor benn nag ci weeru koor ci atum 1326 ci gàddaay gi altine fukki fan ak benn ci weeru koor ci atum 1326 ci gàddaay gi dëppoo muy lundi 12 octobre 1908 lundi 12 octobre 1908 ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor di dëkk nag bu ko xaadim rasul dël féetale ko fa ci dëkk boobu nag la génne àdduna moom sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim moo woolu rakkam ja maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngir di ko wax ne nag mu dem taxawu nag seen waajur woowu di sëriñ Mbàkke ginnaaw bu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru taxawoo nag waajuroon woowu nag di sëriñ Mbacke Kajoor maam Moor Jaara magi mag nag moo jullee sëriñ Mbacke Kajoor ñu jébbal ko boroomam ci armeer yi Mbacke Kajoor yooyu ay xalifaam nag nii la tëddee ci atum 1908 ba atum 1961 taawam ba sëriñ Amar Fall Mbacke mooy ki ko njëkk a wuutu nekk itam nag premier xalifaam ñaareelu xalifa sëriñ Mbacke Kajoor mooy ku ñuy wax sëriñ Abdul Karim Mbacke moo toog xalifa ci atum 1961 ba atum 1965 ñetteelu xalifa sëriñ Mbacke Kajoor Senghor mooy sëriñ Moodu Njaaña Mbàkke moo toog xalifa ci atum 1965 ba atum 1981 ñeenteelu xalifa sëriñ Mbàkke Kajoor mooy sëriñ Abibu Mbàkke Imaam moo toog xalifa ci atum 1981 ba atum 2005 doomu sëriñ Mbàkke Kajoor yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suuf sët yi nag tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam ci atum 2005 la ba 2005 ndax ñaari weer rek nag la toog ci jal bi muy sëriñ Omar Mbàkke ibnu sëriñ Amar Mbàkke ñaareelu sët bi wuutu maamam mooy sëriñ abdul quddus mbàkke ibnu sëriñ amar faal mbàkke moo nekk nag xalifab sëriñ mbàkke kajoor ci li ko dale nag ci 2005 ba 2016 ñetteelu sët nag bu wuutu maamam mooy sëriñ moustapha mbàkke parcelle ibnu sëriñ mbàkke soxna aan ibnu sëriñ mbàkke kajoor moo fi toog nag 2016 ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayub sëriñ mbàkke kajoor bi ak mbooleem nag ñum séqal nag sëriñ mbàkke kajoor moo xam góor ak jigéen sëriñ mbàkke kajoor nag am na bis buñ koy fàttaliku muy luñ tudde ak màggal màggal muy ñeenti fani kori gi sababu màggal gi nag mooy sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu mu jógee ci gi ci atum 1902 jaar fi mu jaar muy ndakaaru ndar géej lugaloo bari jàmm siisee sànnoosi ginnaaw bu mu defee sànnoosi nag juróomi fani koor ga bañ kori nag ba ca suba ga la fa jóge nag jaar njeng jaw màkka sàmba baabu ñëw nag ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor tombeeg nag muy ñeenti fan yi nag korite gi boobu nag la ñuy fàttaliku nag ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor muy bis bi sëriñ tubaa seexul xaddiim seet see waajuróomu wow di sëriñ mbàkke kajoor ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor màggal gi nag ci atum 1981 nag lañ ko tàmbalee màggal ginnaaw nag bu sëriñ abibu mbàkkee nag duggee nag lii di xalwa doon wax ne nag day xool ba xam nag am na ndigalul màggal màggal géem ndéeta séentub nag weeru korite wi ci 1981 nag bisub àllarba nekkoon séentu bu njëkk ba sëriñ abibu mbàkke wax ne nag bu fekkee ne weer wi feeñ na nag ci àllarba ji day dëppoog nag dibéer ja seexul xaddim nag ñëwoon ci mbàkke kajoor bu fekkee ne nag xam ne nag amul ndigalul màggal màggal gi waaye nag suñ boroom nag dogal na nag mu feeñ nag ci àllarba jooju nag ñu doon séentu nag weeru korite wa mu xam ne itam na kon nag listixaar gi mu defoon nag wér na mu woote nag màggaluk sëriñ mbàkke kajoor ñëw nag ci toogoon toogaayu xaadim rasul di sëriñ tubaa cheikh abdoulahad mbàkke cheikh abdoulahad di ko wax ne su ma amoon damay ànd ak yéen màggal màggal gi waaye nag am nga ci ndigal wéyal nag di ko màggal loolu ma waraloon nag ñu woote nag lii di màggaluk mbàkke kajoor ci ñeenti fan yooyu fa seexul xaadim ñëwoon loolu itam taxoon na cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasul ci diirub ñu fi nekk itam daawul wuute màggal gi loolu mooy sababu màggal màggalu mbàkke kajoor mu ñeenti fani korite ya fa seexul xaddim ñëwoon ginnaaw bu mu jógee sànnuusi jaar njeng jaw màkka sàmba baabu ñëw nag ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor ñuy ñaan ci dara jay ka seexul xaddim daa wooye sama waajur di sëriñ mbàkke kajoor yal nañ ko suñ borom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam yal na ko suñ borom saafara ci dara xaddim rasul